Auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim monsieur le président ñu ngi lay nuyu di nuyu monsieur le ministre euh, di pétrole et gaz di nuyu monsieur le ministre des finances monsieur le ministre du travail di nuyu seeni collaborateurs di vraiment am nag euh, jaaxle tey jël kàddu c'est la première fois quand même douze ans assemblée nationale naruma voté budget bii ni eh, commune bu Vélingara Ferlo laata muy nekk commune ak mu nekk chef lieu d' arrondissement defe naa biñ koy ci réforme yu njëkk yi commune bi ñoo maase 76 je pense suma ma juumul suma papa moo fa njëkk nekk PCR 40 eh, ans parti socialiste commune boobu communauté rural boobu amul courant mun nañ ko nangu ndax boobu xalaatuñu sax courant euh, suñu pap président Abdoulaye Wade ñëw érigé Matam région commune Vélingara nekk chef lieu d' arrondissement ci biir département bu Ranérou Ferlo ñu nekk douze ans wala mën naa ne dix ans parce que Wade mu ngi ko créé deux mille deux dix ans avec président Wade amuñu courant président Macky mi nga xam ne ñëw na fa ñaari yoon fanaan na fa deux jours mënuma comprendre ñu toog douze ans avec président Macky Sall Vélingara mënul am courant chef-lieu d'arrondissement am ay lycée am ay collège euh, lampadaire lampadaire mënul charger sax téléphone c'est pas la solution courant bi ñu fay charger ay portable deux mille quinze seize Lamaka Akon may valeur deux cent millions avec appui fondation Servir le Sénégal maa ngi sant première daam ci laa ko yóbbu foofu moom moom lañ moom la ñuy taal ci biir kër yi mais ba fi may wax ak yow su ma mag mu ngi fii bité président Macky Sall deux fois may dem këram bokk moom añ mu jël téléphone am mu woona benn yoon bi ministre bi fi jaaroon la woo beneen yoon bi biitee la woo poto yaa ngi foofu toog moo tax ma ne damay utiliser bennoo waa Vélingara nañ bennoo te déglu mais aussi wàllu ngeen wàlluñu taxaw ngeen taxawuñu yéewi ngeen yéewi Vélingara ci lëndëm bi parce que ça suffit quand musuma taxaw fii am gàcc ak tiitaange sudul ren musuma bañ a voté benn budget sudul ren et incha allahu rabbi damay jël population bi témoin budget ren bi c'est domage nag dafa tase ñoo xam ne ñi ma gën a ruus ci ministère yi monsieur le ministre merci beaucoup